bokk jullit yi bokki taalibe yi kuréel gi nga xam ne mooy Touba ca kanam seen banqaas boobu di commission sociale ci njiital Serigne Muxtada moom Serigne Abdul Fattah moom seriñ Falilou ñu fas yéene yëkkatiwaat ay kàddu soññaat mbooleem koo xam ne nii solidarité ñor na la jàppalante ñor na la ngir ñu ñëw jàppale Touba ca kanam jàppale commission sociale ngir ñu jàppale ñi yeeyoo ndimbal ci dëkk bu sell bi nga xam ne seen lépp dañu ko bàyyi ñëw wuy si wooteb Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul di fàttali bisub social bi nga xam ne Touba ci kanam da ko baaxoo woon a def at mu jot daan ko jàpp ci biir koor gi ren jëf yi xaw naa doy waar waaye nag la Cheikh Abdou Lahad Mbacké waxoon loolu rek mën nañ ko caa fàttali mooy xol yu xol yu nangu moo gën nawet bu nangu kenn kon xam na ne fi ne jëf yëpp taxaw na waaye nit ñi moom seen bëgg Serigne Touba ak seen jëma jëf jëmale jëf ci ñoom amul waxtu amul amul amul kon nag lu fa jamono toll du tee ñu soññee ndax dëkk bi ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ñoo fi ñoo fi ñëw jaaxle bëgg ndimbal xam ne Serigne Touba yàlla dimbale na ko te da koy te koy dimbale waate rek ñu ñëw bàyyi seen seen i kër ndey ak seen i kër bàyyi ñëw dëkk seeg Serigne Touba ñooñee Touba ca kanam bokk ci li nga xam ne boole nañ leen seen liggéey engagé wu di leen dimbale bis boobee ñu daan leen daan defal ci koor gi moo dellu siwaat waaye noo ngi soññ nag ñun àdduna bépp soññ waa Sénégal waaye di soññ li ñuy wax diaspora ndax dafa mel ne tumaal nañ ci tuma tuma joo ne mënatuñ koo miim ndax dafa mel ne daanaka dañoo dëkk ak ñoom di woote ñëpp ñëw jàpp ci lu ñu defoon rek nañ fexe ba rombaat ko ngir jëmmi sëñ Tuubaa ji may woo sama bopp di woo mboolum ñëpp ak yaakaar sëñ Tuubaa di tàmbalee bi ci sax Moodu Muntaxa mi nga xam ne mooy mooy social te mooy taxaw yoon sëñ Tuubaa yi yéeg suñu kilifa bopp suñu Abu Baraka sëñ Sidi mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Abdoul Ahad ak njaboot sëñ Tuubaa gépp fu ñu yor buñ ko sëñ yëpp maa ngi ci woo te xam lii àll sëñ Tuubaa la ñëpp yëmi sëñ Tuubaa la ñëpp kenn ku ne sëñ Tuubaa defal na loo xam ne euh, jomb na la kon maa ngi ñaan ci ñëpp kenn ku ne génn ci la am defoo ko ci ñu jàppale ko taalibe yi ñu jàpp ko njuli yi ba li nga xam ne metti na ñu sama borom teggi ñu ko ci ñëpp maa ngi koy sant sama bopp di ko di ko ñëpp di ko di ko di ko ñaan di ko yoraan na benn benn nit ñoo xam ne samay wëlër lañ di samay xarit ñu daal bu liggéey Moussa Diop kenn ko daa ngi gar ma ku ñuy wax suñu fàllu galasmaane di teg sama mbokk bopp sëñ s mooy ku ku daan jëf jëf yu baax ci mel nii am na sama mbokkum taalibe mu ñuy wax Omar baawoo maa ngi ko ci woo di ci woo euh, suñu mbokku taalibe muy suñu Morlo Moustapha Fall ak Pape Fall ak Ibrahima Fall seen rakk yooyu maa nañu ci woo ci liggéey bi ñëw jàpp liggéey suñu Tuubaa kon may woo àdduna di woo jamono yëpp sëñ Mbuub mooy bokk ci liggéey bi daana ci jëf ju yëpp gis euh, sëñ Ablaye Dia euh, bu Sénégal ak Mbaye Sarr menn mooy mooy ñu ngi nañ ci ñëpp ñu yàlla yekkal ñëpp daal maa nañu ci woo sàmba ñëw ñëw jàppale ci liggéey bi jamono jëf fépp lu ma ne waaye jëf fii toll ndax social bi damay wax ne kon ñëpp social euh, social lañ fi jamono ñu toll ndax kenn géntu sa kër même ñi nekk biti réew social kon may ñaanti ñi nekk biti réew ñi nga xam ne am nañu ay moyens yu néew di génn di liggéey nga xam ne nekk nu jaay wala ñu nekk di liggéey te mos dara maa ngi ñaan ñoom it ñu social seen bopp ci ci ñooñee ngi nekk foofu ci réew ya ñu ngi lay sañ ñi nga soññ commerçant yi asaka yi sax nañ ko génne fii jot na asaka moom daa daa ñor na xom daa fii mën naa génn ngeen ngeen dugg ko ci sañ leen commerçant yi Touba rek commerçant yi fi nekk rek yéen commerçant yi bu ngeen génnoon kenn ku nekk bu gën ab 5000 francs lu loolu mën naa def lu bari bari kon nañ ko seen bokk commerçant yi ñu jaayante sëñ Touba euh, kenn ko foo nekk ñu may digg sama kàddu ki waaye nekk rek yónnee li nga am tam gaaw euh, yo matukaay yi moom yomb na léegi waaye am rek bu dikkee dañ ko jàll fi soobee yàlla insha allahu euh, di soññewaat rek ci bis bi nga xam ne nii moom la ñuy si laataa ñuy soññee nag ñu masaw mboolem àdduna bépp di leen soññuwaat mboolem mbokki taalibe yëpp ci ndimbal lii nga xam ne nii dañ koo baaxoo def ci at mu jot ndax social moom naka jekk li muy taxawee mooy di faj nit ñi ak di dimbali ñi nga xam ne nii ñoom na seen loxo jotu seen ginnaaw loolu nag jamono ñu nekk lañ ko daan def waaye rawatina ci jamono bi ñu toll ndax bu fekkoon ne mën nañ ko wax ci taarix jamono ji mën nañ koo tuddee amul xusnu jamono ja nga xam ne Seydina Ousmane doon na jëf-jëfam ju rëy ba booy jàng raay ya sëñ Tuubaa di wax ne wa fii xaala nabi subhaan xusmaanu yasfaxu fii sabxiina alfan wa kullun xaqoo naaru jëf ju réy jëm defoon ba tax suñu borom jagleel ko mu mu mën a ràmb juróom-ñaar fukki junni nit yoo xam ne ku ci nekk waroon naa dem sawara jamono jooju day mel ne du ma wax ne teewaat na waaye lu ko nuru teew na kon nag képp koo xam ne yàlla defal na la ñu ngi lay woo ci bis bi ndax ñi daan laaj bu dee kenn léegi junnee laaj ndax ñu bëri ci nit ñi sax boo leen gisee mën ngaa jàpp ne ñoom matal nañ am na lu dul jeex te fekk booba li alxuraan di wax rek moo leen dal mooy da nga leen yaakaar ne ñoom am na lu dul jeex waaye ca booba yoruñu dara yax si moom lu jaaxilu ax ni yaa mina taxafuf taxarifuhum bi siimahum li ko waral laa yas'aluuna naas ilhaafan loolu rek moo fi nekk kon nag ñu ngi woo ñëpp di woo kilifa yëpp di sant bu baax nag Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne waxtu wu social wootee moom moo ciy njëkk a dugal loxoom ba tax na fu liggéey bi yam ren rek dana dana dana ko weesu kon ñi ngi ñu ngi ciy woo bokki taalibe yëpp di wax ne social ci biir Touba ci kanam la nekk waaye Touba ci kanam li ñu baaxoo def mooy murit bu nekk ñaar téeméer ci weer wu nekk waaye loolu nag ñu ngi koy jëmee ci wàllu infrastructure muy tabax ay hôpital ak yóbbu am ndox ak yu ne dem waaye lépp lu ñuy def ci social bi foo ko déggee rek dañ koo jaayante ginnaaw bu defeelee ba noppi la ñuy jaayante waat la laneen mu mel ne bu doon diine dañuy wax ne ginnaaw bu nattee asaka jul aji màkka def mboolem ponki lislaam yi dañ caa boole laneen nag muy ay nawafil te nawafil yooyu mooy tax nga àgg ci suñu borom kon ñu ngi woo ñëpp di sant bokki taalibe yi nga xam ne ni baaxoon na cee joxe seen seen i ndimbal di wax ne bis ñi ngi tey jii lañ ko tàmbali jëm ca bisu koor ga euh, niñ koy fas yéenee niñ koy fas yéenee jox tamit jërul kenn di ñëw ca sees ba wala muy déplacé wu waaye danañ yebal ay nit ñoo xam ne nii danañ dem ba agsi ñoom jël leen jël seen i numéro téléphone ku ci nekk la nga ci war a jot da ko ci jot. ñu ngi ñu ngi woo tamit Touba Technopolis ak mboolem kuréel yi nga xam ne nii eh, réew mi ko ndax Touba Ca Kanam moom ku nekk xam na ne ci sëriñ bi la tàmbalee yam ci sëriñ bi waaye dañoo toll ci jamono joo xam ne nii ñëpp a yittewoo te mu am ci loo xam ne nii askan yépp ko bokk ci kaw loolu nag ci leen ñuy woowee servir le Sénégal ak waa action sociale ak mbooleem directeur généraux yeeg ak mbooleem ñi nga xam ne seen loxo jot na seen ginnaaw ñu ngi woo mbooleem banque yi nga xam ne nii ñoo nekk ci Sénégal gépp bàyyiwuñu benn banque nag rawatina banque banque yi nga xam ne ñooy liggéey ak Touba Touba Ca Kanam mu doon ay banque yu limu ak waa Sonatel bokk na ci ñi ni xam ne ñooy ñooy gën a liggéeyal Touba ca kanam ak waa Tigo kaas waa euh, Expresso yëpp ñu ngi leen di woo ndax ñoom ñëpp dañuy liggéey ak Touba ca kanam kon nag li ñuy liggéey ak yëpp bu ñu amee bis nag boo xam ne nii bis bi jubluwaay bi mooy ñu jàppale ci doomu adama yi nga xam ne nii seen loxo jël seen ginnaaw kon yéen tamit seen seen loxo ñu ngi koy séentu. mbooleem opérateur économique yi nekk ci réew mi yëpp rawatina yi nekk Touba xam naa mënuñoo tudd tur yëpp waaye buñ nee woo nañ waa inaakuwaay yëpp ak mbooleem ñëpp ñu aju ci ñoom woo nañ boo mboolem commerçant yi nekk ci réew mi yëpp buñ nee woo nañ ACIS muy association de commerçants et industriels du Sénégal mel na ne woo nañ commerçant ak opérateur économique yi nekk ci réew mi yëpp xam naa bu ñu woo assis nag dañ koy jaarale ci ACIS bu Touba comme li ñu woote ci Touba la di ko jaale jaarale ci njiit li muy Sëriñ Fàllu Xumma mu woo mbooleem commercant yi nga xamante ni ñu ngi ci biir assis ñu ñëw jàpp ci ndimbal yi nga xam ne Touba ci kanam mi ngi koy sàkku jëmale ko ci askan wi bu dee ci mag ñi ñu ngi koy tàmbalee ci turu suñu baay suñu waajur sëriñ Mouhamadou Diop di woo sëriñ Kàbb Fall sëriñ Moustapha Gadiaga sëriñ As Jaxate ak mbooleem ñi aju ci ñoom ñoom sëriñ Cheikh Diagne Gaynde sëriñ Sidi jaañ ak mbooleem commercant yi nekk Touba yëpp mbooleem opérateur économique bu nekk Touba ak artisan yi nekk ci Touba yëpp ñu ngi leen ciy woo